amul problème ak sa bopp kii c'est le président ARCO banlieue Pikine je suis le président de l'ARCO Guédiawaye lu ñu war a wax dañ koy wax lu ñu war a def dañ koy def artistes yi ni ngeen mel seen biir ñu yëg nañu donc pour leeral mu leer dañu ne ñun ren dañuy organiser journée mondiale ak Guédiawaye Pikine nee na naturellement da ko doon def foofu day def yendoo donc loolu moo fi nekk mais leneen am to incha allahu rabbi képp ku fi jógee ku ñu laaj lan moo tax Guédiawaye organisé Pikine organisé nga dimbali ñu yemal ñu li ñu li nga dégg c'est valable pour tout amul lenn loo xamante ni moo dox ci diggante Pikine ak Guédiawaye ñun ñoo ne dañuy def suñu journée mondiale du théâtre ak Guédiawaye la Pikine da ko doon def def na def na spectacle jeex na ñëw na rejoindre ñu Guédiawaye donc benn lañu kenn mënuñu séparé yàlla ñu yàlla defal jàmm li ñu fi dajale ñu mottali ko ci jàmm nit ñi ci nekk ñoo indi seeni problème ci biir théâtre xamul pour diviser kenn métier libéral la nga droit def ku ne am nga droit a defee problème nit ñaa ñëw indi ci ay problème ngir yàlla nañu jàpp ne ay artiste comédien lañ li ñuy wax dañ koo war a tund ndax nit ki meloo na nga waxee na nga mel mag ñee ko problème ci biir mais théâtre moom jógul pour diviser kenn métier libéral la ku nekk am nga droit def ku ne am nga droit nga def sa théâtre ni ko bëgg a defee mais théâtre amul yenn problème nit ñaa ñëw indi ci ay problème ngir yàlla nañu jàpp ne ay artistes comédien lañ li ñuy wax koo war a tund ndax nit meloo na nga da nga jëfee na nga mel mag ñee ko wax Hey, Robert pare ci la waaye daa ko bàyyi ma waaye tamit nag daa yow yaa ngi doon gis nga xam ne Ah, why can't you come? Why? Ah, then let's see. What you? Yeah, what you? Woman, then the man for you who want to wear the whole futon. Hey, hey, come on, let's get a nga bit of a snack. We're not going to do that. responsable bu mag lañ si digg dëkk bi ba lépp lu ñuy def wax ñu si jiital nit ñi di seen i baal di seen i maam kon nag ah man man loolu dama ko def de bu fekkee ne yaa ngi dagg nag nga dagg ko waaye ñun ñu ko def. ah dana ndam. waaw waaw léegi dama ne ñun ñett ñii. waaw ñoo ko mënoon nekk fóotu. waaw ñoo demandoo quartier. ku ci am kii ñu ñoo koy mottali. waaw man mënu maa dem nekkal la. macam Thank you. Yeah. 예! 자식 달래주면 죠 먹은 주부 두는 거 미겠죠

waaye da ngay mën a woy mënoo ko dañ lay lekk dañ lay soog léegi nga noo ko. da ngay woy normalement. waaw waaw liggéey adresseur du yëfu góor Thank you. da koy bàyyi sa loxo bu waaw. dañ ko tas. lenn rek mooy solution la. bañ ko loolu bëgg ko keneen ku dul yow mënu ci dara lay fukki bu fekkee sa guddi li nga bëgg ma génne ko léegi nga wax ma génne la sa guddi li léegi la ko doon mën man koy def léegi yow day mun na ko woy si mu yàq léegi nii yaa ngi ko gën a xam. Viviane moo def ko jamono sama yoon Money, money, money.

moom moom nee na moom réew mi buñ ko bëggee sànq dañ koy tëj ci légitimité moom nee na ndaw bu ko àdduna signé bu mu na dégg ci bàq Magistrat, prophète, représentant des dieux. Ancien soldat. Ancien maître maçon. Ancien videur, prospertu avec mention spéciale. Ancien préposé des en Côte d'Ivoire, écrivain public. Désigné pour venir mettre le monde en règle, sans plus ni trouble. Mais il est fou. officiellement oui mais officieusement non am ah, pour lan dama la ko may ñuy yërëm ngay yëpp jëriñ yaa mën a maye ci ay bor daal ci la waaye man yorelu ma kenn bor monsieur le président xanaa xamuloo ni xiif gi mar gi ak rafle gi ëllëg ñu àggee ci borom bi bala ca laaj kenn yow mii la ci njëkk laaj ndax xam ko ko la bu la ko nga tax sa fa je suis le président de la république je suis le président de la république et puis cër bi ngay bàkkoo ñi ko amee woon ñooy borom bàmmeel yu raaf yi place bi nga toog ku ñuy wax Senghor toogal na fi anamu tey place bi nga toog ku ñuy wax Kadhafi toogal na fi anamu tey place bi nga toog ku ñuy wax Hitler toogal na fi anamu tey seen bale yaa ngi nii tiim ñu waaye seen une yaa ngi nii tiim waaye man. wuteeg naa loolu safaan ba bi ma fi toogee ba léegi askan wi gis nañ coppite bu ma fi def tabax naa fi ay école njàng mi gën a tabax fii ay hôpital malaat yi gën a bëri naa tal yi jàngeeg tikki gi gën fi def lim ko du yomb na par waay sant yi usines yi même association ne di doole yi ak yeneen ak yeneen tey boo bëggee xam man maay kan danga may laaj askan wi monsieur le président bëggoon na la laaj ndax dama fekkee ñetti jamono jamono bu njëkk bi mooy jamono yi ñuy këfee xale ci mbedd yóbbu jamono di dox ba ñuy fekk xale ci ginnaaw ndeyam mu bot ñu këf ko yóbbu ñetteelu jamono ba mooy jamono ji ñu xottee biiru ndey di ci génne doom bi yóbbu ma ci la laaj monsieur le président fan la réew mi ci toog oh. ah, plus ce qui fait qu'on nous croit fou. C'est un monde de fer où l'homme ne se reconnaît plus. C'est un monde où l'amour et l'espoir se sont dus. Des alertes à la bombe. Tous les jours, toutes les nuits. Ils disent que Dieu est mort. En fait, ils ne l'écoutent plus. Les religions ont failli. Les idéologies sont dissipées. Les conflits ont perdu. Et la science devient l'ennemi de l'homme. Les enfants ont soutenu perdu. Il y a double Des pour la kitchen. Au de souffrance. Et il la fin comme ta carambo de Seigneur comme tu roques. Nañu leen daw ci bañu am itam. Suñuy mbaax la di koy lank. Système bi dal dañuy fa. Wutal ñu jamono ko ba. Xol leen dëkk waaye léegi jël nañu bët takkal ko sareetu nof laay daful dox kër mbaax waaye dafay doxantu nga parasol gore ba ka daan ñuy sàggane nañu ko ba mu foofu tawte tabe tey bu doon séq wét lay sabe ndax ña ko waroon a gunge dañ ko fa fàtte ndax ku wàcc sa ànd di nga mën a dëjooti ci beneen ànd je crois que la réponse est non ndax bi fi ñoom mam bàyyi bu ñu ko sàgganee ëllëg dinañu am lu ñu lay Je crois que la réponse est non. ndax ku sàgganee sa ndono sa moom it dina jàpp. Je crois. askan bu réer te gërëm tiit te ànd ak njàqare ndax ñëw téef yi ñuy dund suñu réew. ba ñuy soppi suñu melokaan ci bopp yu baax yu ñu amee woon te tënkee woon ko sandaalu maam yëpp. ba ràppal ngor si seen xol ya ñu jël kersa soppi ko ger ba kàddu xëy ñu rey fob yar di ko góor ba mu xëy soppi ngor ñu jël ngóoram soppi ko ngóor ba bis muy néewal doole lu ay bët du gis du teew xel te la say xol di yëg jëllaaral xam na ko gémme na say maam wallaay jant fenk ba jant bi jooy taw ba jur ak gàncax di lonk dinañ taw sama ami taw woon fii ci Arco Guédiawaye ci bisu journée mondiale du théâtre bi seet si suñu papa ji nga xam ne def loon lu ne ci aar papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. noo dundee tey bis bi journée mondiale du théâtre bi noo ko jàngatee. Euh, vraiment tey ni ñu ko dundee mooy xol bu sedd rek parce que lii mi ngi wane ni ñu ngi dundalaat aar bi ndax comme ni ñu ko waxee sànq rek jamono yi yoon ci gannaaw pour nga amoon lii jafe woon na trop. da ngay organiser sa journée mondiale def ko sa yëfi bopp dugal ko sa biir koñ wala sa biir kër wala espace bi nga xamante ni fa ngay répété mais léegi bu ñu demee ba yàlla dimbali ñu ñuy dajaloo ñun artistes comédiens yi nekk ci région de Dakar yëpp di ko feete ci ay place yu différent defe naa lu rëy la lu yaatu la te dañ ciy sant yàlla bu baax a baax. mën naa ni tey xol yi sedd na xol yëpp tooy na ndax tey gis nañ ni mag ñi nekkoon ci aar. Yen suñu gesso gis len suñu xel day dal ndax yen a ci di dundal a papa tay nan nga ban question nga am dikonya ñaax xalé yi ñun ñi nekk ci milieu lan nga ñuy ñaaxaat. Euh, c'est juste comme li nga wax ñun daf ñoo dal parce que biñu dugg ci théâtre dañ fi fekk ay mag ñoo xamne dañ ko yoron yoron bu rafet diñu tété diñu wax diñu ratifier bañu ñu fi ñu agsi tay kon tay buñu tollé fi euh suñuy dom suñuy jarwat ak suñuy rak di ñew liñ leen di conseillé mooy li ñuy conseillé suñu bopp rek euh, na nga góorlu xam ne lii métier la du fowukaay théâtre du fowukaay métier la xëy na yàgg na euh, lëndëm na bari na xam-xam mais lu mu yàgg-yàgg-yàgg boo ko tarbiyoo rek mu jariñ la te kenn ku ci nekk bul yàkkam bul ci xool xaalis bul ci xool naa siiw da ngay góorlu gëm sa bopp liggéey surtout théâtre sur parce que téléfilm dafa am sur scène am

mais ku liggéeyul nag mënoo fayee ko dara parce que foo ko yem rek foofu la la yem bu la jaralee lu nekk nag day yàgg rek mais yàlla dala ciy fay loo yaakaarul woon. kon mën naa ni ñoo ko déggandoo kon yéen ndaw yi ñun ndaw ñi yéen laay waxal nañ leen déglu bu baax a baax suñu mag ñi nga xam ni ñoo ñu jiitu ci aar topp seen ginnaaw aar bi moo ngi nii do ay caaxaan soo ko jëlee def ko bëgg-bëgg def ko métier gëm ko li nga ci bëgg yàlla daf la ko ci defal ñoo ngi fii tey géejawaay jóge nañ Pikine ñëw Géejawaay ba tey ñoo ngi biir Géejawaay jàkkaarlook suñu yaay ji jongoma ji jaal bu bak jaal caam jaal ma ca ayre yaay booy noo dundee tey bis journée mondial bi. ah sama doom dama lay nuyu ba pare di la ziar kontaan ci yow kontaan ni nga yore micro bi macha allah euh, kontaan rek ndax suñu jour la euh, journée mondiale du théâtre moom ñoo ko moom ñi nga xamante ni ñooy théâtre kon kontaan rek bëgg rek la gis ngeen ko ñoko ko gisandoo nee naa leen tey daal aara xewle tay fu waay ne sa xol tooy na kontaan ba tey ñoo ngi biir Arko Guédiawaye sama papa ju baax yi ma gesu gis ko Leyti Fall sama président papa nuy naal waaw maa ngi lay fay sama doom bugguma. papa noo dundee tay bisu tay bi journée mondiale bi ñun ñëpp artistes yëpp bokk yendo ensemble nekk benn famille noo gisee loolu. waaw di ko rafetlu rek di ko rafetlu di wax ne wax dëgg yàlla euh, dañuy ñaan yàlla mu gën a yokk. ndax tey ku fi ñëw rek ci journée mondiale du théâtre gis nga artistes yi ni ñu def gis ngeen Sorano saal ba ndeysaan dafa fees dell paa yi maire yi ñëpp a ñëw donc suñu magu théâtre yi ñëpp ñëw ñu jóge fa ñëw Pikine gis ngeen ko jóge fa ñëw Géejawaay gis ngeen ko donc defe naa ne bis bi tey ku xool xam ne artistes yi amuñu benn problème nit yee am problème rek bëgg ko indi ci théâtre mais théâtre ci boppam moom amul benn problème comme ni ma ko waxee ci biir kontaan nañ trop ci bis bi ci ñun jeunes yi ñi nekk ci milieu art nekk seen ginnaaw yan conseil ngeen ñu mën a jox ak fan la ñu war a mën a teg suñu tànk ba ëllëg nan la ñuy def. waaw am na solo ndax euh, soo nekkee ci métier fekk ci ñu la mag ñu la ci jiitu da ngay xool ñooñu parce que ñun dañoo xooloon suñu ay papa ay pa Malick Ndiaye papa Loulou Diop ay Samba Wan dañoo xooloon ay magu théâtre xool li ñuy def moo tax ñun waruñu def erreur ci teyaat parce que suñ ko defee rek ñooñu ñi fi nekk dinañ ñu woone ñu jàpp suñu nopp na santuñu la woon lii wala waroo doxee nii te nit nag war nga jombale sa bopp sax euh, ñu lay woo di la yedd nit day day day day bañ ku ko yedd moo tax yéen ndaw ñi tam dañ leen di digal ngeen xool ci mag ñi lu ngeen bëgg a xam bu ngeen ñëwee ci mag ñi laaj leen dinañ leen wax wan leen yoon li bon rek mooy demu leen ci mag ñi laaj ba pare daan ne mag ñi duñ ñu wax duñ ñu def donc dee leen teg seen tànk fi mag ñi tegoon seen tànk looy bëgg a def nga laaj noo bëgg a dugg ci benn kii nga laaj ñu wax la orienté la su ko defee di nga def loo xamante ni ne ku ko gis dina la ci naw te mu nekk lu rafet ndax théâtre léppam dafa rafet léppam dafa sell théâtre amul dara lu ñaaw donc maa ngi conseillé ndaw yëpp daal nañu nañu bàyyi loolu xel di ko conseillé fàttali sama bopp parce que man it ndaw laa bu nekk ci yéen bu ñu leen magee tamit ñoo bokk benn génération donc di ko fàttali sama bopp di ko di ko fàttali samay rakk di ko fàttali ñëpp que nañu gën a booloo euh, juboo nekk benn te li ñuy wax mu nekk ci ñun nit ki melul na waxe waxee jëfé jëfee la mel donc ni ñuy wax nañu nañ koy fexe di ko jëfee yàlla jàppale ñu théâtre bi jëm kanam vive le théâtre la ñuy wax